su ma sori kooku moo calcium bu moo ko jëloon. moo calcium bu mag boobu. te man damay ko nangoo ñu ñu ñu loolu. xam nga man su ma su ma jaaxal ak ñoom man dama xalaat dara wax dëgg parce que ñi ngay kontaagal jàpp nga ne ñoo gën a ñoo ëpp doole ñoo dàq bëri. ñoo gën a suñu ëllëgee am na lëpp. ok lu ne nga fa non lu ne nga fa ay Cheikh Diop Kaasu Sène numéro 2 ay ay Kaaw Gourdin ay Oli Guèye ay euh, Laye Mbaye numéro 2 ay Thiatou Dalifort franchement bu ñu waxantee dëgg rek moom délivre délivre moo complet jàppale da nga dem. bu gars yi ñëwee jàppale ñu. seen grand yi ñu ngi fi ñoom kaw si seen numéro ñu ngi fi ñoom Oscar ñu ngi fi. ñoom Kayne Junior ñu ngi fi. ñooñu ñëpp ñooñu ñëpp ay garab yu baax la ñu doon leen baax leen baax vraiment yu parce que Oscar boo seetee am na benn idée bu ma demoon tax sama taxi baax saalam naa ko ok mu doon moom gratuit naa ñu ma garab xam naa ko ñu baax la te fu ñu def may jox ay conseil bu baax finalement nag arbitre bi sifflé yéen sa diggante ak euh, Bébé Tonnerre lu tax joxoo ko cër bi lu tax respecté woo ko lu tax liiroo combat bi lan moo parce que boo bàyyi ko bu lépp xam nga. Mhm. dama lay bàyyi ko bu nekk. man mhm. dama laa dama parce que dara am ay sens. Pape Aliou la la ma doon wax mu ne ko kii dafa maa jël ci làmb lu bëri. Ah ah oui ba pare gëstu mel message. ah oui voilà laa koy primé. ah oui te yow loolu sa avantage la. yow boo sañoon à chaque fois ki nekk sa kanam moom mooy gëstu may la sens. nga bëre parce que boo daanee da ngay avancé. te ba ma liggéey foofu dama laa gërëmaat. bi nga bi nga ko daanee ba pare. waaw dama laa gërëmaat. ba nga ko ba nga bëree moom daan ko. parce que waaw parce que moom Alioune Sèye Junior ñoo bokkoon. Mhm. Papa Dia mu nekk ko baax grand bu nekk. Mhm. musuma wax lu may rey musuma wax lu may gaañ. Mhm. gannaaw dafa ma ne da nga am combat bu mag. que maa ngi ñoo bokk saako dégg naa stade bi. ko tuddee na baax am am fayam. Mhm. mu ne ma booy avant combat nga ne nga parce que ki ngay bëri nii dafa mën a bëri. avant bi. Mhm. nga war a ko def ci ma faral lu naaj. Mhm. dafa na baax quoi. mais jour encore nga songu nga avancé. non man moom man deux ans boo seetlee sama premier combat la. waaw deuxième toog moo doon. ah bi day si léegi avancé. te su ma xamoon combat noonu laay def. attaquant nga. yow nga xam jàpp daal. mënuma ma attaqué su baaxul. te su ma tuuti damay damay. da demaat yow dem nga xam. jàpp mën a bëre daal. man métier mooy. nga bëre signé le triplé dans l'arène. sa premier combat nga bëre daal deuxième combat nga bëre daal. troisième combat nga bëree daal nga nekk mbër boo xam ne yow dafa mel ni danga ne gars yi xajal leen ma ma ñëw damay ñëw maa ngi ñëw ci seen kaw. parce que des fois sax sama whatsapp sax ma dugal dara statut yi benn mbër nga envoyé ma vocal ma ko ma da nga jàpp ne sa kanam da nga koy jàpp daan leen mën noonu la fa demee yaa mën booy. loolu gëm-gëm la rek. ah gëm-gëm. yaa mën booy. gëm-gëm bu nekk ci man la rek. waaw léegi yaa mën booy. booy looy réew man réew ma. instant bi réew ma kenn mënul ah kenn mënul waaye am na lu ma jot a am tuuti li nga xam li nga xam ne. jàpp nga ni mu si jàppanteel. waaw ah. non du yàgg wax du ko waaw ah, léegi booy yi ci boppam laa bëgg nga tuddal ma ñan ñoo war a mën a ñëw nag instant bi jël avance su caatu kay la bëri moom saison prochaine nga ñëw déclenché génn dem sa yoon. waaw ah, même daanaka laay wax rek. kooku wax naa ko waraat ko. waaw kan la ci. champion mag na. laay laay Seras. laay Seras laay Seras. laay Seras. waaw. moom nga bëgg mu ñëw ngeen bëri. waaw jigéen la. combat la mais Laye Seras gëj na bëri de Laye Seras ça fait deux ans bëri. moo moo tax mu bëgg a bëri moom xam nga dañ ne a ñëwee de mu ñëwee sax am na moom la. ñooñu ba ñuy bëree ñuy bëree di prouver ci arène bi yow bëree ko. xalaat nga naan Laye Seras caatu keneen nee na nga ñëw ngeen bëri apart part laay Serax ku doon la jël. Përi Ba mooy. Hmm. Përi Ba mooy man. bu yëmbal. Përi Ba ah. ah, nga gis moo tax nga ñëwee. nekk da nga nekk sa ay amel la rose yëpp. non damay may non non da nga tuddagum Petit Baboy léegi yow ku tegoon avant Petit Baboy nga jël. génnoon moom léegi léegi xam nga bëri baaxul. jarul maa xam. ah jarul nga koy xam. léegi ah, man dama ko xam nag man dama ko xam bu baax. loolu garaaw bi xamul man. na avance bi ñëw. na avance bi ñëw rek. instant damaa ko nekk. Petit Baboy caatu kay rek nee na nga jël avance am. da ngaa ko nekk instant bi. Petit Baboy laaj séerase. amel la ko trois personnes laaj. ok amel la ko doo dool. waaw. li mu nekk si kii bi pare doon na xaw ma. amel la ko mi daan li si am. mi daan euh, Petit Lo. waaw mais buñu maa ñëw. ñu ñu ñu tax ñu ne maa leen dugal. léegi Ameth Lac Rose na jël avance bi ñëw bëri ak yow. li nga xam ne nag fu wóor laa xam. waxal. ku ci loolu noonu ngay wax. waaw lu ci laa ngay wax. waaw bu ma jël ma dugal daal ñoom ñaar ñëpp laa koy wax. li ci laa bu la jëlee que du ma ko daan. mais lépp li ci laa wax parce que maanaam maanaam sax kóobu afis. non d' accord nga xam ne turam sax lu ma ko daan. non d' accord lii sax instant bi mi ngi ci contrat parce que diggante ak caatu bés taxaw na. gis naa ko caatu ba taxaw mais amel Ndago bi nga instant bi nekkagul ci contrat. dama jot dag fi fiy tudd turam léegi-léegi promoteur gis ko contacter ko neko ko sa diggante ak chatou kayre mais koy buñ ñu la contacté ne la Ameth Ndago bi ngi nii bul taw jëlal avance barki mohammed sama isa pare nañ. ko combat bi. la ni ngi ni ñu ngi lay dégg nii sax. kon instant bi combat bu ñëwee instant bi ñu jël. dañu sonu instant bi ci lay ok mbër ndaw yakko mo metti ko no xamna ci dara xamna ci dara yor mbeur mu do dafa metti ñu wara a defar

Euh, pourtant aussi qu'on se dise la vérité gis ngeen ngeen bëri ci seen biir dafay neex boo boolee boy yi wax naa ko si waxaat naa ko fi nee naa leen sama gars yi ñu ne maanaam man leen petit contre petit moo dàq grand contre petit parce que boo jëlee ñaari boy boole leen ñu entraîné ba taxaw mobiliser jours yi ñu ñëw indi ambiance admissif la ñu jàkkaarloo bëree lu rëy amateur yi dañuy kontaan. xam nga mooy dañoo wax benn groupe WhatsApp ñun ñëpp 100% Iran

tey balaa suba parce que boo leen ko nanguwul jël tey du ñàkk un jour di ngeen bëgg a bëri moom mu tëddee mais instant bi entraînement yi man lay demee. instant bi nii ñu pare nii kat lay demee. boo fi jógee ah, da ngay dem entraîné ji. Ah. fan nga jëm dañuy liggéey matin soir. matin et soir comme comme combat waaw. ñaata séance benn séance wala ñaar. deux séances ñaata. deux séances. deux séances par jour. Hmm. nu muy demee ban heure la. dem géej 6 heures maanaam. 6 heures maanaam 6 heures. matin et tey. waaw ah. heure bi ni la gën a neexee. boobu ngeen di yeewu demante nañ. d' accord des fois 5 heures sax. 5 heures du matin. ok après. 6 heures ci ngoon. 6 heures ci ngoon dem géej. liggéey lu métti. ok suma gars yi ah de toute façon euh, mbër nga ci yoonam quoi waaw mbër nga ci yoonam kii moom mooy caatu euh, kayre bu Dalifort na ngeen ko xamee noonu mais damay dellusiwaat ci làmb Dalifort euh, am na benn instant boo xam ne seen i grand woon nañ dem ba commencé génn ba gars yi bàyyi leen xel mais vague boobu dafa jékki-jékki arrêté su mooy su may lim mën naa indi kaw si numéro mën naa ci jël euh, euh, Kayre Junior mën naa ci lim ku mel ni euh, ay c'est pas ay Oscar ay ñoom kii Jibi Faye yaa may am na benn instant boo xam ne Danifor gars commencé woon ko dégg ci làmb mais dañu boobu arrêté Kayre Junior demee mu demee Oscar. benn instant prouvé tout gisatuñ ko. benn instant ñu gis beneen vague bu jógee ci suuf di yéeg ay Kaw euh, Gourdin yaa may dégg Cheikh Diop Kaw euh, euh, Cité numéro 2. Oligans Laybé numéro 2 mm-hmm. yow dégg caatu Ndalifo Valdo SMI mm-hmm. mais est-ce nga ni yow bëri mën a limal lii yow nag bokkoo ci quoi yow instant yow laay laaj est-ce que mën a limal nii gis nga ci mbër boo xam ne war mën a téye làmb ji ci ay loxo. bëri na. mbër yi mën a limal. xam nga xam nga xam nga jaam ak garam yàlla doon ñoom ñu ngi ay kaw si dër. ñun ñëpp ay ñaanal lañ. kaw si dër dem. seen wu si yoon bi ñu ngi ne waaw. ñaanal la. Uh-huh. mais yàlla def ñu def. léegi mhm. mu doon bàyyi quoi mu nekk jàmbaar. démb démb ñu ngi yàlla am jàmbaar. mu nekk jàmbaar te dëgg naa mu ñëwaat. na dund rek na ah. dund rek na dund rek am jàmm. na dund rek am jàmm. voilà. te te dina ñëwaat sax incha allah. léegi booy yi. yow kan nga ciy gis ne war na mën a téye làmb ji un jour. bëri na Kaye Séddo ndaanaan la. waaw dofu dofu bërikat la. waaw Thiat Dalifon ndaanaan la. waaw ñu fi wax ñëpp instant Maye Baldo ñëpp ay fi. ñëpp ay mais kan nga ci gis ne war na mën a téye làmb ji un jour. ñoom kii la wala kaar parce xaw ma man xaw ma sax si man mën naa xëy tey day waay. am nga yaakaar ne Dalifon un jour danañ téye làmb ji. gëm naa loolu koy. gëm nga loolu dama koy doxee dama koy waxee. su ma sama nit loolu laay wax

jafe-jafe boobu moo ñëwaat. Ah. loolu du loo ah, parce que tamit boo seetee tamit muy arrêté di ko affaire di daal fekk na mu ngi taxaw ci lancé bu exceptionnel nekk ci ay victoire victoire victoire. ñoom bëri na ñëpp xam nañu bu baax a bu baax. woon nii. waaw ba léegi na mu ci beneen niveau. waaw yow ci daa bokk sax. kaw si seen ci làmb léegi da nga defal sa top 5 juróomi mbër yi dàq bëri ci làmb jox nga ma kaw si seen moo dàq bëri ci làmb indi yeneen ñeenti bëri mag la. Modou Lo daanaan la. Modou Lo. maa ngi leen di leen Balla Gaye 2. Moussène daanaan. Moussène. Boy Niang daanaan. Boy Niang. ñii ci làmb euh, Kaw Cissé numéro 1 Modou Lo Balla Gaye Moussène Boy Niang ci làmb yaa ngi man parce man. man làmb laay seetaan quoi parce que man. dama daan supporter ba avant avant ma. man nekkoon supporter. kay xam naa ko. kay mbëri Dalifort yaa ngi na fi génn nga nga nga nga yenu nga yenu kii bi nga yenu photo bi. mu mel trop la xam nga loolu mu doon ay affaire yoo xam ne dañuy toog di ko fàttali xam nga. tey nga war a taxaw xaal sa yoon. mu doon ay jaar jaar. Hmm. moo tax képp ku ma dajal ci ci làmb. Hmm. waaw dama naan gars yi ñu doon def mbëru Dalifort comme comme maanaam mbëri bi ñu ñëwee téye seen bopp. Hmm. ma damaa bañ loolu ma damaa bañ damaa bëgg mbëru bu entraîné ba si jour bi. nga ñëw